الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ginnaaw bu ñu santee borom bi tabaraka wa taala di julli ci yonentam bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi leen di nuyu nuyu islam te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi tali ñoo dellu si di leen yëgal séminaire bi muy amal muy bis boo xam ne bisub xam-xam la ñu ciy firi benn téere bu ñuy wax al aqidatu al wasitiya te al ustaaz Alpha Ba tàmbali woon ko ca Ravena ñu war a ñëw nag fii ci mottali ko allah mu war a aljuma 8 décembre ak samedi 9 décembre incha allah waxtaan wi nag wala téere bi nag jàngat bi ma ngay amee ca Via Europa 54 interno 18 ca Rovato ca jàkka ja incha allah ñu ngi wo mbokk yëpp di leen xamal ni nañ teel a ñëw ndax ñu teel a tàmbali jotaay bi incha allah di ko tàmbali ginnaaw tàkkusaan muy deux heures et demie wala trois heures incha allah ba boori wala buñ jullee timis ba pare incha allah kon samedi wala ajjuma ak samedi incha allahu ci laal oustaz Alpha Ba war ñoo ñëw yeggalil téere bi ñuy wax al aqidatu al wasitiya ñu war cee jëriñu moom it ngi koy ñaanal yàlla mu de leeral làmmiñam waaye mu may ko kattan waaye mboolem jullit yi tamit ñu ngi leen ci woo koo xam ne bëgg nga ci am ay information mën ngaa woo al oustaz Abou Mokhtar ci 338 45 69 629 wala nga woo abu Fatima al Kabir al oustaz Ali Ndiaye numéro am nekk 333 19 78 864 kon ñu ngi ciy woo mbokk yëpp aljuma samedi 8 décembre ak 9 décembre ginnaaw julli tàkkusaan incha allah ca jàkkay Rovatodia ca Brescia wasalaamu wa rahmatullahi wa